dale nag jàmm ñoo ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii de la Témoin xëy duñu xibaar naan ñu dialogue national bi ñu woote ci réew mi ngir nag waxtaane lu jëm ci wàllum yoon ci réew mi maanaam wàllum justice tey ji la dialogue national bi di ubbi ca diwaanu Diamniadio concertation yoo xam ne moom la njiitu réew mi di président Bassirou woote ak ñi nga xam ne ay acteur lañu ci lu jëm ci wàllum yoon maanaam ñi nga xam ne xel màcc na jëm ci wàllum yoon tey ji la ñuy waxtaane lu jëm ci wàllum yoon ci réew mi te nag journal bi nee na loolee njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye moo ji bëgg-bëgg mooy askan wi kenn ku nekk am xel mu dalal ci lu jëm ci wàllum yoon journal bi nee na wàllum yoon ne moom la ñu wootee na du fa teg tànkam bi ñu ko laajee nee na ay caaxaan la ndax moom dafa jàpp ne ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum yoon ñooñu rek mënoon nañoo def ay concertation ñooñu rek mënoon nañoo indi ay réforme waaye kenn ku nekk ñu bëgg laa invité ndax gis na ne sax moom dafa am ñenn ñoo xam ne ay criminel lañu ñu daal leen di invité moom honorable député nee na jamono ji li nga xam ne moom la askanu Sénégal di sàkku mooy dund gu cher gi ñu daal di koy wàññi courant xam ne amuñu liggéey ñu wutal leen liggéey location bu cher bi ñu daal koy wàññi tabaski gi nga xam ne moo dëg ma la kilifa yi daal di ciy taxaw lu jëm ci wàllum régler dëkk bu métti bi loolee moo waroon a nekk taxawaayu Bassirou Diomaye Faye ak borom ñaari tur yi député nee na loolee tamit bokk na ci li Ousmane Sonko digoon askanu Sénégal te jamono ji ñoom war nañu see taxaw ndax ñoom bu ñu demee bay def ab projet de loi jëm ci lanceur d'alerte yi jamono jooje mënoon nañu faa def ab loi boo xam ne képp ku yëngatu ci wàllum nguur jigéen crime lay doon moom honorable député nee na semaine bi nga xam ne moom la ñu dëgmal dina dugal ab proposition de boo xam ne dina aju ngir nag ñu daal di ñaari tur yi na waxtaan na ci ak Ababacar Mboup bu collectif sàmm jikko yi yéen kaay dala ko du jaaxee du ñu xibaar xaalis covid ba naan ñu ceeb bi yokku na ci réew mi ndax kilo ceeb non parfumé jugee na trois cent cinquante ma ngi ci cinq cent francs bu dee saakub ceeb bi nga xam ne mooy ceeb non parfumé doon jar dix-sept mille jamono ji ma ngi ci dix di commerçant nekk ca marché Tilène daan nay wax ne yokku gi semaine bii ñu génn la ma ngi ci journal bi de la Tribune daan wax ne bu dee ceeb bi nga xam ne ceeb parfumé la boobee kilo bi jamono ji ma ngi ci cinq cent cinquante jàpp six cent francs yéen kay gi de te mooy xëy wax ci Bah ak Imam àtte ci tribunalum Dakar procureur nee na nañu tëj imam Ndao nee na nañu tëj Bah lu toll ci juróom benn weer yéen kay gi di source xëy duñu xibaar naan ñu démb ca tribunal ba nee na li mu wax mooy carrière politique bu Ousmane Sonko dina jafe loolu nga génne ko ci ñi nga xam ne ñooy def promotion ci lu jëm ci borom ñaari tur yi moom Bah Diakhaté nee na offensive wul kenn tooñul kenn ay fee la wax déclaration patrimoine bu Ousmane Sonko Bah Diakhaté nee li mu ci wax lu leer la ndax nee na 2016 Ousmane Sonko dafa def déclaration patrimoine boo ne am ko mars 2018 Ousmane Sonko jaay na immeuble Ndaw moom daan weddi li nga xam ne moom lañ ko doon waxal ndax kenn ne moom lañ ko doon dégloo ca kanamu dikk maanaam dañu ko forcé ngir nag mu daal di koy signé yéene kaay gi dalee ko xëy duñu xibaar naan ñii seeni avocat dañu leen doon sàkkul ay liberté provisoire dañu leen koo gàntal altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal si lañ leen di létt wala ñu firi leen maanaam délibération gi altine ji ñu dëgmal la yéenekaay gi di réew mi ko di jaaxee duñu xibaar nañu Bah Diakhaté dafa confirmer kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ci Ousmane Sonko ak Abdourahmane Kébé Ndaw ni ki démb ci tribunal bëgg Bassirou Diomaye Faye bi mu yëkkatee kàddu yooyu Maître El Hadji Diouf mi nga xam ne moo ko doon layal daf ko femm maire ba mara day taale El Hadji Diouf na ko boo nekk tey ci tribunal bi di fi wax ne da ngaa bëgg Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye maanaam du ma la défendre Bah Diakhaté bi nee na man waxuma ak Ousmane Sonko ministre Ousmane Sonko parti Pastef laa doon waxal yéenekaay gi du l'Observateur Le Témoin Libération Les Échos xëy duñu xibaar nañu homme d'affaires bi di Doro Gueye ma ngi ci guddi gu bët séddiku la ndax dañu ko arrêté dañu ko teg loxo section de recherche ñoo ko teg loxo jamono ji ma ngi ci ab garde à vue yéenekaay gi ne li ko waral bokk na ci ay njuuj njaaj ay tappale jëm ci wàllum kër maanaam escroquerie foncière journal bi du l'Observateur nee ku ñuy wax loo xam ne toll na ci benn milliard yéenekaay gi délibération benn milliard bu fekk 200 millions la journal bi nee na homme d'affaires bi nag d'accord na avance lu toll ci 500 millions ngir ñu bàyyi ko mu féex journal bi di libération nee na homme d'affaires di Doro Gueye ca teeru bi la ko fekk ne ko ciix daal koy jàpp yóbbu journal bi nee moom Doro Gueye encaissé na embauché na lu toll ci benn milliard bu fekk 200 millions lu jëm ci ay kër yoo xam ne da ko doon jaay moom doo Gueye ci enquête bi tudd na ci Macky Sall ndax nee na kër yooyee maanaam bàyyi Macky moo ko joxoon ngir mu mën koo jaay ngir nag mën ko see financer ay mission yoo xam ne Macky Sall moo ko ko doon sant yéenekaay nee na kër yi nga xam ne Doro Gueye doon na ko jaaye kër yooyee ca ancien aéroport bala waaye nag Doro Gueye journal bi nee na da doon ay kër yoo xam ne ay terrain fictif la maanaam kër yu amul ay baay la yor te na baay yooyee Macky Sall moo ko ko jox waaye nag ma ci guddi gu bët séddiku la yéene gi di bi xëy duñu xibaar naan ñu doomu Mansour Faye bii di Assou Faye ñaari policier ca Kébémer ñoo ko tegoon loxo fekk mu yor lu toll ci vingt cinq millions liquide maanaam ñaar fukk ak juróom ci ay millions xobbet xobbet journal bi nee na doomu Mansour Faye bi nag dafa proposé ñi nga xam ne ñooy ñaari policier yi wax leen na leen xaar leen mooy jox leen ci xaalis bi ngeen daal di may bàyyi journal bi nee na ginnaaw bi mu leen joxe xaalis si la ko policiers yi daal di bàyyi mu féex waaye nag bàyyi ji bi mu ko yëgee di Mansour Faye dafa nga xam ne ñoo nekkoon Kébémer ñaar ñoo ñu nekk leen ràjjee waaye nag policiers yi li nga ne moo leen metti mooy doomu Mansour Faye bi nga xam ne jamono ji kenn ubbiwul enquête ci mooma ndax nag bu dee nag doomu Mansour Faye bi dafa yoronum xaalis bu dee tamit dafa geraate kookee wuruñu ko bàyyi mu dem noone yéen kay xibaar naan ñu wolof njaay nee na buy digle cangaay day fekk nga sangu ba noppee journal bi nee na docteur Ndeena Mbodj mi nga xam ne moo njiitul kuddu fan yi ñu génn dafa waxoon ne bëggatul kenn koo xam ne dafay retard maanaam heure bi dafa bëgg ñëpp daal di koy fonko waaye nag démb ci altine ji moom docteur Ndeena Mbodj mi jiite kuddu dafa woote woon ab réunion convoqué réunion boo xam ne syndicaliste yi la waaye nag dafa retard moom mi nga xam ne mooy nday bi liggéey li mu doon tere moom la def waaye nag ñi nga xam ne ñooy syndicat yi ñoo ko ci defal bu ko neex ndax bi mu retardé lu toll ci 41 minutes syndicat yëpp dañu jël seen génne dëbës ak seeni bagage génn salle bi dem yéen kaay gi di vox populi xëy duñu xibaar naan lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi yëngu na maanaam wàllum santé bi ndax syndicat bi di SAMES ak syndicat bi di SUTSAS ñoom nag dañoo fës yéene dem ci gerew tey jii la ñuy commencé bi gerewum ñetti fan ndax ñoom nee nañu seeni ñaxto seeni revendication ba léegi waxuguñ leen ci lenn loo xam ne lu dalum xel la yéen kaay gi dala di jaay yor yor nañ ko fa 2015 ba léegi demul ci nga dikkul mbay laar loole la bëgg ñu daal di ko yeggale ak yeneen i benk jafe-jafe yoo xam ne am na ci université ba yéen kaay gi du l'observateur xëy duñuy xibaar mbir mu garaaw mbir mu doy moo xam ne war nañu see bàyyi xel ndax journal bi nee na bëri na loo xam ne ñoo koy jox xale yi te nag loolee dafay faat xale yi da leen di ay jàngoro da leen di ay jafe-jafe maanaam goûter yi ko xoolaat nañu na muy chips di jus di friandise loolu lépp na ci ay yoo xam ne ay benk ñenke ki